këyit moom Seydina du ci ñaanal nit muy échec donc loolu yaakaar naa ne du ñu ci yàgg sax parce que ku ci nekk xam na tey euh, ne Seydina résultat yi mu def ci àdduna bi yëpp euh, ci ñi nga xamante ne bi dañoo am problème mu nationalité problème mu visa mais bëgg ñëw ci benn mbir ñi nga xamante ne bi ñaare xaalis la ñuy lañ leen di yoreel bañ leen fay ñi nga xamante ne bi aussi dañuy nekk ci benn projet séq ko kilifa euh, est-ce que loolu itam ci xaatin lañ koy jaar wala kurus parce da nga ci am ay résultats. waaw am na ñaan yoo xam ne euh, kurus moom moo koy faj nit ki da nga koy ñaanal sax te doo ko jox mu sango doo ko jox mu naan doo ko jox mu takk. waaw loolu il faut nga xam tabia nit ki ban biddiw la taxawee moo tax wàllu ñaan euh, foofu aajo ñiy ñaan ngir yàlla ñu dem jàngi la saar xam ko. ndax boobaa résultat nga am ko dafay yomb ndax yàllaa la si dimbale ndax nit ku nekk rek am na fu mu taxawee si biddiw biddiw boo ko xamee tey te nit ki kurusam. xam turam xam biddiwam xam ñaata la ndax chiffre bu nekk ni ku nekk sa chiffre biddiw am na lu mu signé fi ñii 32 ñii 123 ñii nangam tey loo am na loo koy jàpp si turu yàlla di ko ñaanal nit ki lu mu mënta xëccoo da lu mu mënta xëccoo moo xam nguur la moo xam kayit moo xam mën nga si liggéeyal sax nit fi nga toog nopp si tur boobu kese xamal turam xam chiffre am rek si wàllu biddiw su ma déggee sa wax euh, nit ki nga xamante ne bi day xëccoo euh, bërëb place moo xam suuf la lu mu mën di doon bu jokkoo ko yow jarul sax muy déplacé wu ci sa kurus gi mën nga fexe ba mu jot li mu bëgg a jot. macha allah loolu li ñu si liggéey kenn xamul lu mu am ñun bëri na ñoo xam ne ñu ngi ñuy sant di ñu ba tey teganteeguñ ba dañuy gis rek oo ñu wax ñu seen soxla yàlla suturaal ñu si ndax yàlla moom boo toppee yoonam bi force mu dimbale la. te yaakaar dafa for moo tax ñii ñaan il faut ñu la ndax nit ki ki ngay ñaanal sax mën naa moo la ëpp maqaama si yàlla. moo tax il faut nga wàcce leen seen wàccuwaay. bañ a naxante di bañ a lekk alal jàmbu di ko di ko nax ndax ñi ngay lekk seen alal ñi si ëpp sa baay lañ wala say yaay wala say mag te ñoom dañaa liggéey moo tax bu ñu la ooyee seen aajo boobu da nga war a sonn ñun nag képp ku ñu oo wax ñu soxlaa ma moo xam lu mën a nekk dañ ko si dimbalee ba mu yàlla may ko si résultat. Setsima TV. l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér te